ziar ziar a temps mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di wax ne tey aussi dañ déplacé wu ñëw ba fii ci Boune euh, ñëw avons en un espoir une valeur ci dans l'arène en l'occurrence ki ma ñëw seet tay mu ngi Valérie Valcara nous lañ ñëw tay en ce jour spécial euh, mercredi 30 juin 2021 open press moom lañ organisé parce que dafa war a un combat crucial un combat capital face à Boy C'est ci cadre boobu ci lañ déplacé wu tey ñëw fekk si ko ci open press bi mu war a def lu yéeme war a wone war a ay fansam état de forme physique bi mu nekk aussi war a mobiliser gars yi direction stade combat am contre Boy Sébi Valérie open press bi moom lañ ñëw teewe tey échauffement bi coach Massaer moom mooy diriger Massaer coach bu jëf soog a nekk noonu entraînement yi Valérie mi ngi a bëre samedi mi ngi a bëre dimanche waaw mi ngi a bëre dimanche 4 juillet 2021 à l'arène nationale di Boy Sébi ak Ndiago bi mooy am noonu Valérie ngay am noonu Waleri ngay am noonu aca Fal moom ngay am noonu waaw Valeri ngay am noonu open press bi Orton maa ngi seen ci rang maa ngi seen Toro ci rang yi maa ngi seen Paul bu Daaru ci rang yi waaw waaw coach Massayer mooy dirigé maa ngi seen Boy Dia maa ngi seen ci rang yi waaw waaw coach Massayer mooy dirigé noonu waaw waaw Orton ci rang waaw waaw Bass Bébé Tonnerre ngi ci rang yi Bébé Tonnerre mi ngi ci rang yi waaw waaw l'escouade de l'école de lutte ñoom ngay seen noonu Mamel Orton moom ngay seen noonu waaw waaw waaw waaw Aïcha Valérie Aïcha Valkara moom ngay am noonu Valkara ngay am noonu coach Massaer moo ko jiitu Orton moo nekk ci ginnaawam moo aligné ci ginnaawam waaw waaw enfant de Boune moom ngay am noonu Valkara waaw waaw waaw waaw aha waaw waaw Valkara ngay am noonu Val ngay am noonu bal ngay am noonu Valérie moom ngay seen noonu oh, waaw oh, waaw waaw waaw Val l'adversaire de Boy Sébi moom ngeen di am noonu war a bëre ay ca mbër Max Cobra ngay am noonu Orton waaw waaw ay ca mbër voilà ay ca mbër waaw kookoy Boy Dia Boy Dia ngay am noonu ci sow bi Boy Diakhao am noonu ci sow bi l'espoir ayca ko koy gaucher gaucher ngay am noonu ci biir rang yi l'adversaire de Gouloum Junior waaw waaw Valgara Valérie Valérie ngay am noonu ci rang l'adversaire de Boy Sébi coach Massayer moo aligné ak moom Orton moo aligné ak moom waaw ci rang yi Boy Dia aha ci bas Bébé Tonnerre Bébé Tonnerre ngay am noonu ci rang yi waaw waaw ba bu Daaru mi ngi noonu l'adversaire de DMX ngay am noonu aha Toro waaw waaw aca Valérie waaw waaw Masayer Moydirize Balegi. Masayer Moydirize Koç Masayer. Moydirize Nonu Valeri. Moydirize Valeri. Ayça Orton. Massaer mooy diriger ci sooyi aha aha wala li ngeen di am noonu ba léegi ma gaay tey le mercredi ñoo ngi fii ci Boune ñëw si open press open press kii di Valérie Valkara moom ngay am noonu l' adversaire de Boy Sébi l' de Boy Sébi moom ngay am noonu l' adversaire de Boy Sébi Massaer mooy dirigé waaw waaw Massaer mooy dirigé noonu aca Valérie waaw waaw Orton ngay am noonu Orton ngay am noonu moo daan kulum junior keroog booy jaa ci rang yi Boy Dia yi waaw oh, waaw aca Anta ça c'est mon petit frère kooku sama rakk la bas bébé tonnerre mi ngi nale bébé tonnerre ngay am noonu bor bu daaru oh, waaw waaw sama gaay Whoa, whoa. aca Val dégguma la maa bañ gose moom may kaañoo noonu neen moom may ko gerte caaf gaucher mu may kaañoo noonu ne mi ngi noonu aja waaw waaw waaw waaw Valérie ci exercice yi ba léegi Valérie ci exercice yi ndeysaan melax fils de Ali ngay seen noonu le fils de Mohamed Ali moom ngay seen noonu melax fils de Ali Modou Boy numéro 2 ci wet gi waaw aca mbër aca Boy Dia waaw waaw Modou Boy numéro 2 c'est mon petit frère maa ngi ziar jaajëf jaajëf man Valérie ngay am noonu Valérie ngay am noonu Valérie ngay am noonu Valérie ngay am noonu noonu Valérie ngay am noonu Valérie ngay am noonu Valérie ngay am noonu Diarra mu ngay am noonu Valeri ngay am noonu Valeri ngay am noonu Valeri ngay am noonu ci tuus bi mi ngi yëngal public bi nga waaw waaw waaw aca